billahi mina sheytaani rajim teg ci bismillahi rahmaani rahim sant yàlla bu wér a wér a yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sëriñ Bamba xaadimu rasul sama sëriñ sama wasila sunu sëriñ sunu wasila ndax balaa maa wax kenn man dama jiital sama bopp ndax ah, dama fierté doon murit gëm sëriñ Bamba juddu ci ba màgget ci kon bu ma toogee am fu ma nekk am ab dëj sama goro génne àddina ma nekk fa dégg li ñu wax ci sama wasila daf may daf ma daal da naqare su ma waxul day mel ni man bu ma murit damay gën a feddali sama kóllëre ak Sëriñ Tuubaa gën koo ñaan mu nangul ñu sunu taalibe parce que du lu rafet njëkk nañ fi Charlie Hebdo ñu bàyyi coow ñëw njëkkewaat ci xaadimal maxtaar sëñ Bamba moom mi nga xam ne góor gi Mbàkke li mu man def na ko liggéey na yóbbu nañ ko fu ne fu nekk jaarloo nañ ko fa coono bu nekk teg nañ ko ko te bu ko neexoon tànkam du dugg ci géej gi ndax kenn du wérante may gi ko jalla wa ala may muy subhanahu wa loolu yépp mu ànd ak muñ akuk dal dem kon damay ñaan doomu aadama yi laa wax ñiy wax di teg ci deram lu bon muñ maanaam nasaraat si nañu dal te bàyyi jàmbur téereem yi téerim yii ku ko mën a xasaa itam yii ku ko mënta jàng xaysu xuri at aw kutibat aw nuzirat ilayha abadan boo amul àddiyee joo ko jox wooy bàyyi ko man damay wax dama pas personnel en tant que Selbé Ndom taalibi Sëriñ Tuubaa fa laay waxee su ma waxul duma murit mu doon nag lu ma naqari waaye ndegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy xayru xalqillah moom mi nga xam ne moo tax yàlla ne ko lawlaa kamaa xuliqat shamsun wala qamarun wala nujumun wala lawxin wala qalamin ndegam ca kooko la ñuy teg astimaak Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne dafa jël léppam jox ko yàlla jox ko yëm ci yàlla Muhammad di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa looloo tax tey ma ne naa ñëw waaye gis naa murid yi ni ñu def bu baax a baax ñëpp kullu tariqa métit lu na ko kullu tariqa métit lu xale yi def nañ marche ci mbedd mi nit ñi ñëpp wax nañu waaye ñu dellu ne bi mu jógee ci géej gi dafa am moom lu mu wax lii mënta ñàkk ak yokkute la ndax màggal gi paase bii nii balaa boobu ba bii paase du bii nii beneen bi dama gis jumaa ji yàlla daf ma woon jumaa gi def pënd mu mel ni dafa am bomb bu explosé man su ma daan dem màggal xale yi dafay am ñu may bàyyi ci kër gi bii nii ma gis kaaba gi ci li ma yàlla woon billahi lazi laa ilaha illa huwa naa ko ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah bi nekk fii dafa mel ni kaaba gi lañ teg ci barabu sëñ Tuubaa nit ñi di tawaaf kon du lu ndaw te am nañ ci yaakaar ne insha allah insha allah insha loolu yàlla dina ko def sëñ Tuubaa moom amul tànki ginnaaw mbàkke kanam rekk ku weddi laaj ni ñu ñu yoroon benn néeg di lekk ñànkatang ak géej njëkk wecceeku nataalam teg ko yéeg ci kaw terrasse bi ne ko mbakke bu nekkee nangu nga suñu taalibe fii ñu nekk benn néeg bi ñu duñu sonal mbàkke jox ñu fu ko gën matul ñaari weer ñu am appartement ñuy demati toog ci appartement ba di lekk ñànkatang ak géej lu yaas di ñu tëj ñu dog topp ko rek mbàkke ba suñu jonu yàlla tey adduna yëpp dégguñu ñuy dem ci barabam boobu di fa fanaan ba bët set yore suñu xasaayit di jàng kon man Selbé Ndom sëñ Touba dafa maa won lu leer man Selbé Ndom sëñ Bamba dafa maa won lu leer ak kéemaanam na kullu doomu aadama dal te xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi xayru xalqi moom ci boppam ndegam moom lañu sonal ñoom xam nañu ay jaar-jaari sëñ Touba kon ñun ñëpp nañ nañu nañu jéggal ñooñee di wax lu bon ndax loolu dañ ko fi fekk ñun fekkewuñu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dañ ko doon sànni xeer lu ne wax nañ ko fu muy julli def nañ ko baara nañ ko def fa ay xaaxaam sànni nañ ko ay xeex sëriñ Tuubaa luñ ko def waaye bu mu jógee ca géej ga defe na lan yaa maalikal mulki yaa man jalla an hawadin irham jamii al waraa yaa haadiyan rada kon ñun taalibe nañu topp fa Sëriñ Tuubaa tegoon tànkam rek ku am loo dimbalee doomu aadama dimbalee ko lépp lu waaye di wax nit sa bopp dañu ne président fekkewu ko nekku fi man loolu laa dégg bu fekkonte ne mi ngi senegaal bu demul dinaa mën a wax ne ah nangam waaye dama dégg ñu ne bañ ko woowee fekk ko fi daa fekk dañ ko ne dafa tukki te ca saa si moom woote na ca saa si ca la ñuy dindi nataal booba jël beneen nataal def ca xulil xaq wala kaana mu ran bu te ne président mi ngi fi dinaa am lu ma koy wax waaye dégg naa nekku fi woon te ba mu ko déggee ca saa si ci la woote ca lañ ko dindi ca saa si kon aw ma dara lu may rapproché président Sénégal lañ mënta taal ñun li ñu am dañ ko war a sant yàlla xëy na am nañ loo xam ne au fond de ñun xamuñu ñun li ñu am wàll yi ñu am dëgg-dëgg ñun xamuñu ko Sénégal kenn du ko taal du càkk xam nga day am at bu ne liñ ci xewal dañoo gis yeneen réew yi Cheikh Ahmadou Bamba nekku fa Seydil Hadj Malick nekku fa maam Imaamu nekku fa Cheikh Ibrahima Niass nekku fa Njaasaan nekku fa eh alhamdulilahi rabbil alamin fii ci Sénégal tiituma loolu man wax nag mënta ñàkk lu tax wax di ñàkk il faut il faut ñu wax il faut ñu jéem a xoqalaatale Sénégal réew mu xoqalaatale dañu bàyyi nit ñi féex nekk ak seen conscience tranquille foog ñu jéem a jaxase xel yi nit ñi tiit di daw loolu ñuy jaxase xelu doomu aadama yi nga dend ak ko amut lekk nga yëkkati lekk jox ko moo gën nga gis ku nekk hôpital amul lu mu fajoo nga jël sa sa alal dem faj ko te yàlla rek tax moo gën man guuma terroriste Sénégal man Selbé su ma ko gisoo nit dama koy wax nga santaat yàlla rek julli ci yonent bi di leen sant bu baax a baax a baax a baax ci recevoir bi ak dalal bi ah di ñaanal euh, directeur euh, yëf fi gën di màgg di màgg di màgg buur géwél làmb ji yow tamit sekk ak sëriñ bi borom julli bu neex bi macha allah mi ngi doon tari saar yu neex di leen ñaanal yàlla di ko di ñaanal sama bopp di ñaanal àdduna bi yëpp di ñaanal surtout Sénégal parce que je suis fière d'être sénégalaise te incha allah Sénégal du tàkk